ok incha allah ñu ngi war a jël tey aaya fukk ak juróom benn ci suuratul kahf fi sunu borom di waxe ni wa ida tazaltumuhum wa ma yacbuduuna illa allah aaya seize ci suuratul kahf alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa asxaabi wa man tabi'ahum bi ihsaanin ila yawmi ddin ñu ngi sant sunu boroom subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne mooy dëppale ay jaamam ca la ko neex wërsëgal bum ñu wërsëgal ñu toog ci ab néegam di fas yéene jàng ab téeréem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ay mbooloo duñu daje mukk ci néegu yàlla ba ngir jàng téeréb yàlla bi lu dul yàlla wàcce ci ñoom ak dal yërmande yàlla yiir leen malaaka yi boroom bi ñëw wër leen sunu boroom di leen tudd ca malaaka ya kawe ya nekk ca moom yal na yàlla boole ci sunu jataay bi ak jataay bépp jullit bu daje ngir ngir alquran kon incha allah ñi ngi war a jël fukkeelu aaya bi ak juróom benn
وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم sunu boroom mi ngi nettali ne xale ya jógoon ngir rawale seen diine mucc ci seen xeet nee nañu wa ida atazaltumuhum wa ma yacbuduuna illa allah heure boo xamee ne nii dëddu ngeen leen ak lépp lu ñuy jaamu ca duñu yàlla fa'wu ilal kahf na ngeen làqu ji ca biir montagne ba kahf mooy benn place bu yaa bu nekk ci montagne yanshur lakum rabbukum min rahmati kon day dana tasaare tàllal ci seen kaw seen boroom ci yërmandeem wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa te it dana waajal ci seen mbir loo xam ne ak yombal la ci nekk ma tartafiquna bihi muy dund gu teey ak jàmm ak salaam mooy ak yombal di mirfaqan mi ngi noonu wa tara shamsa ida talaat da ngay gis jant bi heure bu daan fenk tazawuru an kahfihim zaatal yamin day romb ca seen xuntima ca wàllug ndeyjoor ga wa ida gërabat heure boo xamee ne ma ngay sonak taqriduhum ay tabadu anuhum dana leen sori zaatal shimal jaare ca côté càmmeñ ba wahum fii fajwatin minhu ca jamono jooju ñi ngi nekk ci place bu yaatu ca biir xuntima zalika min ayatillah lool day ci kawtee fi yàlla yi la bokk man yahdi llahu fa huwa almuhtad ki yàlla jubal kii rek mooy ki jub wa man yudlil waaye ku yàlla sànq falan tajida lahu waliyan murshida doo ko mënal amal mukk aji féetewoo joo xam ne ju koy jubal la wa taxsabuhum ayqaaza boo tiimoon xale ya da ngay foog ni ñoom ñu yeewu lañu wa hum ruquud et pourtant boobu ña ngay nelaw wa nuqallibuhum zaata alyamin wa zaata alchimal ñun yàlla ñi ngi leen doon wulbati ca wàllug càmmooñ ca wàllug ndeyjoor ak wàllug càmmooñ mooy wetug ndeyjoor ak wetug càmmooñ wa kalbuhum baasitun ziraaihi bilwasit jamono jooju seen xaj ba ma nga tàllal la nga xam ne mooy ay loxoom ay tànki kanamam bilwasiidi ca buntu kahfi ba law italaata alayhim yow yonent bi sax day bu doon da ngaa yërlu ci ñoom la wallayte minhum firaara da nga daw daw leen da nga wan leen gannaaw daw leen nekk aji daw wala mulite minhum ruba te da nga feesal keroogee sa xol bi ci tiitaange ba nga xam ne tiit nga ko ci gis bi nga leen gis mi ngi noonu mbokk sunu boroom jàngal nañu ne xale yi jogoon bàyyi seen dëkk ndax dëkk ba yépp dañ doon jaamu xërëm buur bi menacé ne leen ci ne bu ñu delluwul ci jaamu xërëm bi dana leen rey ñu daldi daje daldi waxtaan ne nañu làqu ji ca montagne ba nga xam ne soriwul dëkk bi boroom xam-xam yu ne en attendant la woon rek gannaaw ba ñu seet nu ñuy mën a dem bëri ci feneen te yéen ñépp xam ngeen sunu yeneen sallallahu alayhi wa sallam it ba ka waa Makka de bundu xataal ba dogu ci ne nañ ko rey dafa daw waaye ni ashabul kahfi la def dafa dem fële nga xam ne mooy xaaru sawru fala làqu moog abu bakar diiru ñetti fan ba seet bañ ko doon seet riggal ca la doog a génn nag jëm madina heure bu dee bàyyi ngeen bokkaalekat yi bàyyi lépp lu ñuy jaamu ca du yàlla te it mbokk jullit xam leen ne dëddu yàlla di jaamu xërëm kese suñ jamono ji rek la xew waaye mboolem yeneen yi fi nekkoon da ngay gis ne seen problème ak seen xeet nekkul woon wax leen jaamu leen yàlla mais problème bi mooy jaamu leen yàllay kese loolu rek moo nekkoon seen problème waaye xeet yi dañ doon jaamu yàlla di ko bokkaale kon ba leen bàyyi lépp lu ñu jaamu te dul yàlla ngeen dem làqu ji ci xunti mi su ngeen ko defee day yàlla ci mbaaxam ak yërmandeem dana sotti seen kaw lii di yërmande te it dana leen waajal ab daluwaay bu ngeen mën a dundi dund gu tedd te it mbokk loolu sunu borom yàlla moo ko diggee wa man yuhaajir fi sabilillah yajid fi l ardi muragaman kasira wa saa ku gàddaay ci yàlla tax da nga fekk ci kaw suuf ay muccuwaay ñu ne muragaman mooy loo xam ne bu ko say noonu yégee sax daañu mer yu baree bari da nga amit ak yaatu ca loolu mu lay jàngal mbokk jullit amul looy bàyyi ca yàlla tax lu dul yàlla wuutal na lu ko gën loolu dëkkuwaay la liggéey la jëkkër la soxna la lu mu mën a doon ci mbiru àdduna lépp loo xam ne bàyyi nga ko te ba nga koy bàyyi yàlla dong nga ca seet ba bàyyi ko fokk yàlla may la lu gën loolee mu warit nii nga xamee ne nii gone yi dañ koo dëddoo seen xeet mooy képp koo xam ne jullit nga place yi ñuy shirk nga dëdd ko woon ka gannaaw ku la woo ci shirk ndey ak bàyyi kum mën a doon it kooku it nga woon ko gannaaw su dee ne bëgg ngaa doon ko texe léegi borom bi dellu siwaat ci biir xunti ma biir gorot ba muy këx fi ba borom bi nii melokaanu kër fi ba nam deme woon mooy tey comme ni jàkka ji mel rek gis ngeen bunt yi féete ne bunt bi féete ne le mu ne jant bi buy fenk mi ngi leen di rombe ci ndeyjoor loolee day tax ba rayon jant bi dana mën a dugg ci kër fi bi leeral ko buy soyit naka noonu rayon ya day ñëw ci côté càmmoñ leeral ko te loolu xam ngeen mbokk lumière dafa baax pour doomu aadama mën a dund dund gu teey naka noonu itamit lu tax sunu borom tëjul këf fi bi bàyyi ko noonu mu ubbeeku mooy la nga xam ne mooy ngelaw ak péex dafa baax ñeel dund gu teey sunu borom yàlla nee na booba xale yi ñu ngi ci benn place bu yaatu ci biir xunti ma loolee kon xunti mi muy grotte bi mi nga am lumière mi nga am péex fekk ñoom ña nga nekk ci benn place ci biir borom bi subhanahu wa taala ne lii day ci kawti fi yàlla la na am sunu borom yàlla bokk na ci ay kawteefam ni nga xamee ne noonu lay aare ay awliyaam mooy ñi nga xam ne ñoo ko féetewoo waaye bokk na it ci kawteefam ni nga xamee ne da ngay gis ci géej gi da ci wane kawteef jaww ji ci garab yi ci biddiw yi xattaa ci biir montagne yi sunu borom yett ci ay néeg yoo xam ne nii tukkikat bu ñëw mën caa laqu yenn bàyyi may di ci mën a laqu ila axiri zalika min ayatillah borom bi teg ci ni képp koo xam ne sunu borom yàlla moo la jubal kii rek mooy ko jub gaa yi xoolal dëkku lëmm ñépp dañuy bokkaale ana ñan ñoo ca génn ñan ñoo ca jub des jeunes yoo xam ne kenn amu ci quarante ans mi ngi noonu fit ya sax am na ñuy wax naan mooy ñu amagul bi jaww mën na yées sax quarante ans waaye ala kulli xaal ay ndaw lañu sunu borom yàlla jubal leen ci biir dëkk boobu nga xam ne ñépp dañoo réer kon ku yàlla jubal kenn mënu koo réeral waaye ku yàlla subhanahu wa taala bàyyi sag réer it amul kenn koo xam ne nii mën na laa féetewoo lii kon moo tax ab julit fu mu mën a toll day toroxlu ci kanamu yàlla ngiree yàlla boole ko ci ñi mu jubal waaye itamit day xam ni ki yàlla namul ak njubam amul ku ko mën a waar ba mu jub di lépp di mbir yoo xam ne julit da cee war a bàyyi xel sunu borom yàlla delluwaat ci kër fi ba ba ba tey nee na bu doon da nga ñëw xool xale yi da ngay foog ne ñoom kat ñi ngi xoolee fekk ne et pourtant ñi ngi nelaw yenn borom xam-xam yi ni sunu borom moo ubbi seeni bët ndax li ñu fi nar a def ci ab diir di ay siècle loole ci kattanu yàlla ci ay sabab mu ubbi seeni bët ngiree bët yi bañ a yàqu donte ne ñi ngi nelaw te loolu da ngay gis ne am na yenn façon bàyyi ma yu bari yoo xam ni bu ñuy nelaw nelaw yu yàgg noonu la ñuy def dañ naan tilli sax da koy def mooy ubbi benn bët nelaw nelaw ba mu yàgg ñu tëj boobu boobu ubbi beneen bët loolu lépp ci kattanu yàlla la subhanahu wa taala ni muy jubalee la nga xamee ne nii moom mooy ay mbindaafaram borom bi subhanahu wa taala bi mu waxee lii mu ne. ñun yàlla ñoo leen doon wëlbati ci côté ndeyjoor ak côté càmmooñ na am suñu borom mooy def lu ko soob su ko neexoon fan toog la ñuy toog dara du yàqu ci ñoom waaye itamit comme suuf en général lu nekk ak moom contact da koy yàq suñu borom yàlla di leen wëlbati ndeyjoor wëlbati càmmooñ moo xam ci diir ba ndax suba lay doon wala ngoon lay doon wala par heure lay doon wala par semaine lay doon ala kulli xaal suñu borom yi ngi leen doon wëlbati càmmooñ di leen wëlba ci ndeyjoor mi ngi noonu nuqallibuhum zaat al yamin wa zaat al shimal borom bi tudd it la nga xam ne mooy seen xaj ba loolee ba ñuy bala ñuy jàll mbokk ndeketee doomu aadama bi war ngaa xool ñan ngay àndal xoolal sunu borom histoire bu màgg bi bi mu koy wax xaj bi nga xam ne dafa àndoon ak ñoom borom xam-xam yi wax nañ ci lu bari ala kulli xaal mi ngi noonu am nañu ne xale yi juróom benn lañu woon bi ñuy dem lañ dajeeg benn jeune sàmm bu yoroonam xajam ba mu leen dañ ba mu leen laajee fi ngeen jëm ñu expliqué ko woo ko ci tawxiid da leen wuyu si dem xaj ba topp leen bi ñu ñëwee dugg ci kafe bi xaj moom la nga xam ne mooy aadaam daal di toog ca bunt ba tàllal ay ziraam ay loxoom loolu ñu xam ne yonent bi alayhi salaam dafa tere kenn ci yéen buy sujjuut bu mu teg ay loxoom ci suuf maa ngi jublu ci loxo fi ngay takk montre ba sa conco mi ngi noonu loolu mooy azra bu ko teg ci suuf comme ni ko xaj ji defee bal sa loxo bii nga xam ne nii yéen caamini ci ngeen di danke foofu rek ngeen war a teg ci suuf mais la nga xam ne moo montre bi jëm suuf kookee kenn du ko laalal suuf mi ngi noonu comme ni ko xaj ji defee sunu borom tudd na xaj bi ndax ànd gi ànd ak gaa yu baax loolu it dañ ko jàng insha allah suñu dars àllarba bii di ñëw pour wone ne ngal la waaye soo bëggee baax am mujj bu baax del ànd ak ñu baax am déet waaye soo bëggee bon am mujj gu bon del ànd ak ñu bon tax yeneen ci bàyyi salaam ne ki gëm yàlla gëm bis pénc ba mu toog mukk ci taabal boo xam ne ña fa nekk dañuy naan sàngara def ngeen ña fa nekk dañuy naan sàngara loolee kon suñu borom tudd na xaj ba waaw gars yi ndax lii tax na yar xaj dagan déedéet mbokk julit julit du yar xaj tey ni ko Occident jàngalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne tere woon ne julit ni ñu yar xaj lu dul xaj boo xam ne dañ koo tàggat pour mu ñuy rëbbal wala xaj boo xam ne dañu koo tàggat muy wattu tool muy wattu la nga xam ne mooy tool ya amma Occident bi ñu ñëwee xaje dañoo jël xaj def ko muy seen àndandoo am déet Mouhamed Ali yal na ko yàlla dolli yiw may ñu mujj gu rafet may ko ko muy Mouhamed Ali boxeur mondial casus clay bi ngeen xam am na fu ma mësa liir muy wax naan ñun nit ñu ñun ñi dañoo bëgg a mel ne yéen tubaab yi yéen tubaab yi seen melokaan mooy seen égal mooy xaj mooy être l'égal du blanc c'est être l'égal du chien mi ngi noonu lu tax nee na tubaab moo xaj a may tëdd moo xaj a may lekkandoo moo xaj a may ànd kooku xaj mooy mooy moromam am déet ca waliyaasu billah soo demoon ci tubaab yi da ngay gis jigéen ñi tubaab rawatina seen màggal tubaab yoo xam ne xaj sax la ñuy sëyal noonu xam ngeen li may wax xam ngeen ko kon loolu mi ngi noonu léegi nag kon loolu mbokk mbiru tubaab la ci maa ngi ci jubu tubaab bu yéeféer gaa yi tubaab bu seede laa ilaha illallah muhammad rasulullah mën na gën arab yi yewwoo ci biir makka ca wetu kaaba ga kon maa ngi ci jublu tubaab ba yor jukkoy tubaab yi yéeféer sunu borom yàlla gis ne lam leen nattoo mooy xaj mooy seen mandarga loolu it mi ngi noonu su ko defee jukko xaj boobu nekk ci ñoom jurit yow doo yar xaj yeneen ci bàyyi sam nee ne bépp kër boo xam ne xaja nga fa malaako du fa dugg bépp kër boo xam ne xërëma nga fa malaako du fa dugg bépp kër boo xam ne nataal ma nga fa muy suura malaako du fa dugg ñu war a moytu ñun jurit ñi génn ci bépp ixtilaaf mooy bu ñu samp ay xërëm muy ay istati bu ñu bàyyi ay dessin ak photo ci suñuy miiri kër loolu nañ ko dindi yépp ku am sa kër nga xool miir ya am na ay photo yu am ay ay photo yoo xam ne ay roox ma nga ca ngal la waay dindi ko ndax boroom xam-xam yu bari nee nañ yonent bi teqalewul suura rek la wax malaaka bu ne yunn ci néeg bi wala yunn ci kër gi boo gisee la nga xam ne mooy suura day dellu ngeen bàyyi xel ci loolu bu baax kon la yàlla ne qalbuhum basitun zira'ihi bil wasit bu mu tax mukk yow jurit nga jàpp ne am nga droit di jël xaj ji ko yar li nga xam ne mooy sa biir kër borom bi delluwaat ci kër fi ba ba tey daa ji ne yow yonent bi boo leen yërndu woon da nga daw ca gaa yi ki ëppoon fit ci jaami yàlla yi mooy sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ali ibn Abi Talib nee na xeex bu ma saan tar ba tar léegi la ñun ñëpp daan dem ci gannaawam yonent bi rek mooy nekk en contact ak noonu yàlla yi mi ngi noonu waaye teewul yonent suñu borom ne ko même yow boolewul yunn ci këf bi da nga fees ak tiit ba daw mi ngi noonu ar-ra'b mooy al-xawfu shadid te loolu gis ngeen yonent yàlla Moussa ba ko yàlla maye yatama ba ko sànnee mu def jaan te Moussa bokk ci ulul azmi min rusul Moussa ak kattanam gu rëy ga waaye suñu borom nee na ba mu sànnee yat ba ba yat bu soppi ku ñàngoo rek walla mu di biran di loolu yàlla wax day dafa daw gis nga moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam it li ngay dër dër fit bu doon yow yaa ko gis da ngay daw waaw keneen ku dul yonent bi nag kon yàlla subhanahu wa taala ci kattanam def na ci xale yi loo xam ne aar na leen ñàng na ñàngaay boo xam ne doomu aadama mënu ko supporter lii lépp mbokk day won it ne ku yàlla aar dara mënu laa lor am déet su ko defee ab jullit day sukkandiku ci boromam subhanahu wa taala su la yàlla aaree rek jeex na yàlla aar na leen fa ñetti téeméeri at yoo xam ne kenn gisu leen kenn dérangé wu leen yàlla na yàlla aar ñu àdduna ak alaxira
وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثون أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا
sunu boroom jalla wa ala mu ne wa kazalika baasnaahum naka nii di lañ leen génnee ca seen nelaw ya li yatasaalu baynahum ngiree ñu laajante seen biir qaala qaa'ilu minhum kam labistum noonu la waxee aji wax ci yéen waaw ñaata ngeen sax ci seen nelaw yi qaalu labisnaa yawman aw ba'da yawm ñu ne ah ñun di war nañu seen nelaw bis wala bokk xanaa lenn ci bis genn wàllu bis qaalu rabbukum a'lamu bima labistum ñu ne ah yàlla moo gën a xam ci li ngeen fi sax fa ba'asu ahadakum bi wariqikum haadihi na ngeen yónni kenn ci yéen ci seen xaalis bi ilal madina mu dem ca dëkk ba fal yanzur ayyuha azka ta'ama mu xool ana kan moo fa gën a sell ñam fal ya'tikum bi rizqin minhu mu dikka leen ci wërsëgu bawoo ca moom waaye nag wala yatalattaf na làqu de wala yushiranna bikum ahada bu mu feeñal ci yéen kenn kum mën a doon bu mu yëgloo kenn ne yéen a ngi fi innahum in yazharu aleykum gis nga sunu xeet bii bu dee ne not nañ ci yéen yarjumukum dañ leen dóoru xeer ba ngeen dee aw yuidukum fi millatihim wala ñu delloo leen ci seen kéefér ga seen yoon ba ñuy jaamoo yàlla walan tuflihu idan abada te du ngeen texe kon mukk bu ngeen delloo ci yoon boobee mbokk sunu boroom nelawal ne xale yi ñetti téeméeri at xale yi yeewu nañu bi ñu yeewoo yaram yi macha allah dara sikku ci yére yaa ngi nii dara sikku ci ah ñetti téeméeri at léegi ñu toog xoolante waaw man ni nelaw yu yàgg na de am ko waaw ñun ñaata lañu war a def fi waay loolee sunu borom mi ngi koy wax ci benn waay boo xam ne ñenn ñu ne Uzayru la nañ ko jàngoon ca Baqara koo xam ne nii sunu borom nelawloo na ko téeméeri at mu yeewu sunu borom yónnee ko malaaka na ko waaw comme labista mu ne labista yawman aw ba'da yawm mu wax comme li ashabul kahfi wax malaaka bi ne ko déedéet bal labista mi'ata am nelaw nga fi téeméeri at léegi nag fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna xoolal sa yar sa lekk gi sa naan gi da rësiku ci téeméeri at foroxul gaa yi frigidaire frigidaire yàlla moo wóor am déet dara sikku ci waaye xoolal sa mbaam mi fekk mbaam bi moom dee na ba yax ya seey ba mu nekk poussière xoolal borom bi subhanahu wa taala ci benn place nii la aare lekk gi aare waa ji mbaam bi moom mu def ko noonu comme nag waa ji da doon sikki sàkk ci yàlla ni muy dekkee la ñu dee woon ana yuhyi hadhihi llah sunu borom na ko nag xoolal suuf si commencé jóg formé ay yax yax yi taxaw ne suuti yax yi yàpp ñëw wër ko ne suuti yàpp wi aw der wër ko sa mbaam commencé ŋaax mi ngi noonu ñii asaabul kahf it te def toog nañu xoolante waaw ñun su nelaw yu yàgg na de ñu nekk di coow di wax naan ah nelaw yi mbaa matul ñaari fan baa nangam ñu ne daal yàlla moo gën a xam en tout cas benn caay bi fa nekkoon daal lu mën a am daal xiif nañu nañu wuti lu ñu lekk waaw léegi ñu tànn benn waay na ko na nga dem ca dëkk ba te loolu it muy wane ne fagaru it dafa baax booy gàddaay ci yoonu yàlla booy tukki loo mën ci yóbbalu yóbbaloo ko am déet tazawwadu na ngeen yóbbalu gaa yi yóbbalu woon nañu xaalis boo demee ci dëkk ba na nga dem xool ku fa gën a sell ñam azka mooy lu dagan ca neex moo tax lenn ci mu fassiru ne sa dañ ne lu bari ci ñoom ay doomi buur lañu woon da nga wut ñam bu baax ah suñ càmm lan ñam bu gën a baax mooy ginaar yu baax a baax yu ñu defar ba mu jekk azka ta'ama léegi nag waaye nag boo demee na làqatu de wala yatalattaf mbokk sunu maam yi bi leen yàlla nattoowul ci journal bi leen yàlla nattoowul ci télévision lan moo nekkoon lu leen daan wéttal mooy tiirab yàlla bi subhanahu wa taala moom lañ doon jàng guddeeg ba cëkk moom lañ doon nemmeeku guddeeg ba cëkk demoon nañ ba xam ne temps de aaya la demoon nañ bay jàng araf yi ba xam temps de araf la looloo tax demoon nañ ba jàpp ne alxuraan ci baat bi la daje yatalataf fa la daje laam gi mi ngi jóge mi ngi bokk xaaju kaw bi taaga ma nga bokk ci xaaju suuf ba mi ngi noonu ndax nañ ko mii ne woon alxuraan takkoo alxuraan ak ne xool juliti tey dellu ci loolu waxuma ñu baxañ journal yi sànni waaye boo ci defee dix minutes quinze minutes xool la ci l'essentiel la ci des nga def ko ay azkar wala nga jël téere borom bi wala nga jël ab téere boo xam ne day jàngale ay ay ñaan wala nangam waaye ba ñu jël deux heures de temps deux heures et plus trois heures de temps jagleel ko ci xabaar yoo xam ne kee rey na baayam kee njaaloo nag nijaayam kee sàcc na nangam politicien bi nangam laa tuqaddim wala tuaxar amulu la benn njëriñ kon loolu la borom xam-xam yi doon def seet tiirab yàlla bi di ko nemmeeku ba gis na alxuraan mi ngi daje ci wala yatalataf mi ngi noonu kon insha allah xaajal nañ suñ tafsir bi yàlla na yàlla wërsëgal ñu yegale ko ci jàmm fii la alxuraan daje wala yatalataf na fexe ba bu mu yégloo kenn ci yéen ne yéen a ngi fi ndax kat bu ñu yégee ne yéen a ngi fi dañ leen fekk si ca kon daañ leen dóor xeer ba ngeen dee wala ñu delloo leen seen seen diina ci loolu it mbokk ñu dégg ci ne ndax wékku ci yàlla dàq na fagaru déedéet lan mooy fagaru bu wóor ah wékku ci yàlla bu wóor mooy nga def sa kéemtalal kàttan doogu wékku ci yàlla am déet moo tax ñu ne ko demal laqatul bu baax a baax a baax gannaaw ba nga seet koo ñu mën a jëndal lekk nga lekk nga fexe ba bul attirer attention ci yow ndax xam nañu ñoo ngi wa ànd te buñ ñu gisee daañ ñu dóor ay xeer wala ñu delloo ñu ci seen milla bi mooy seen diina ji te kon du ngeen texe loolu it mbokk mi wane ne képp koo xam ne dafa deyaale shirk billah kooku du texe abadan yàlla araamal na ci moom aljanna sawara may wàcc waayam xaalidina fiiha yàlla na yàlla musul ñu ci dellu ci kufru وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا
سمبرون جل وعلا مني wa kazalika asarna alay alayhim naka nii day lañ feeñe la ci ñoom li yaalamu ay waa dëkk ba ann wa'd allahi xaq waa dëkk ba xam ne digub yàlla day lu dëgg la wa ann saata laa rayba fiiha ca it ne lii di waxtu wa yàlla yi atte jaamam ya benn sikk amu ca is yatanaaza'uuna baynahum amrahum jamono bi ñuy nekk di xëccoo ci seen diggante seen mbir fa qaalu bnu alayhim bunyaana ñu ne ew waay tabax leen ci seen kaw benn miir fatt xunt mi ba kenn du yegg ci ñoom rabbuhum a'lamu bihim ñii daal seen borom moo gën a xam seen mbir qaala allazina galabu ala amrihim noonu la waxe ña nga xam ne ñoo notoon ca seen mbir la nattaxisanna alayhim masjida ñun daal daan jël ci seen kaw jàkk ju ñuy jaamoo yàlla sa yaquluuna salaasatun xel sa nañoo wax ne ñett lañu woon raabi'uhum kalbuhum keneen ñeenteel mooy seen xaj ba wa yaquluuna xamsatun am na ñu ne déet juróom lañu woon saadisuhum keneen juróomeel kalbuhum mooy seen xaj ba rajman bil xayb loolu lépp nag dañuy sànni ci kumpa rek wa yaquluuna sabaatun am na ñu naan juróom-ñaar lañu woon wa saaminuhum kalbuhum ka leen juróom-ñetteel mooy seen xaj ba qul rabbi aalamu bi iddatihim neel yàlla moo gën a xam ci seen limba fala tumaari fihim naam maa yaalamuhum kenn xamul lim boobee ila qalil xanaa lu dul lu néew rek fala tumaari fihim bul nekk di dàggasante ci seen mbir illa mira an zahira lu dul dàggasante boo xam ne nii en bu kawe rek lay doon wala tastafti fihim minhum ahada waaye bul sakku ubbi kenn ci ñoom ak ku mën a doon mukk mbokk sunu borom dogal na xale bi dem na ca marché ba ci li mu fassaru ne yi wax bim ñëwee jaaxle gu rëy xam ngeen dal na ko dëkk bi nga jàpp ne démb nga fiy jóge ndekete booba mat na ñetti téeméeri at man xawma xale bi nu mu yegg marché sax ndax jaaxle waaye ala kulli xaal fexe na ba dem ca marché ba bi mu ñëwee gis benn commerçant mu jël xaalis jox ko ne ko jaay ma waa ji xool xaalis bi daa dina ah lii day doy na waar xaalis bi da xawma ko jox ko keneen kooku da xawma ko bañ jox ko magum marché ma mu xool ah xaalis bii day ca jamonoy dëkk yaa nuus la woon benn buur boo xam ne ay siècle la fi woon waaw yow xale bi luy say mbir mu ne dëkk yaa nuus lan man démb laa fi jógee ak sama xaalis gars yi ne ah ñu jël ko yóbbu ko ci palais ba biñ demee historien yi daal di koy questionné ca la ñuy gis ne kii day histoire yi jëloon nañ ko ba denc ko xatta wa raqim boobu ñu wax mooy histoire ba nga xam ne defoon nañ ko ca ñoom léegi ñu laaj ko mu ne expliqué na man feet bi gi fi waroon a am nangam maag sama juróom benn morom ñoo ànd ña nga ci xunti ba dugg fii génn fii wax wax gaa yi nag daal di waaru fekk diggante ñetti téeméeri at yooyu buuru saay-saay ba dee na bu yàgg ba buur bi yilif dëkk bi léegi buuru julit la bu gëm yàlla gis ngeen kooku daal di koy teral daal di na ko nañ dem léegi nag ci sa gaa yi ñu ne biñ demee ba ci xunti mi xunti moo xam ne waa dëkk bi moom xam nañ ne fii kenn mosu fee ma sa jaar mu ne leen nag bu ngeen bu ñu demandoo kon dañuy tiit da ngeen may bàyyi ma dem ba expliqué leen ngeen doog a ñëw gaa yi na ko baax na naka mu dugg ci xunti mi rek xam naa expliqué ay gaayam waa dëkk bi daal dañoo ñëw rek fekk ñoom ñëpp ñuy doog a dee ñoom juróom-ñaar ñëpp ñuy doog a dee gis ngeen ñuy doog a dee nii gannaaw ñetti téeméeri at suñ borom yàlla kon feeñal na leen loolee waa dëkk ba ñetti duñ sikk sàkk ne day dekki am na yépp amatuñ ci sikk sàkk am déet ñi yàlla nelawal ñetti téeméeri at dekkal leen ndax sikk sàkk amati na ci loolu laa wallahi sunu borom yàlla subhanahu wa taala daa di ne noonu la ñuy nekkoon nag jamono bi ñuy xëccoo ci seen mbir waaw ñii nuñ leen di def ñii nangam ak i nangam ala fi ñu daal li gën a mucc ayib seen xunt mii nañ ko tëj ibnu alayhim bunyaana ñetti téeméer at yi ñu def fii léegi nañ fatt turu bi baare ko tabax ko tëj ko mu jeex léegi nag am waa dëkk ba ñu ne dañ fi def jàkka ñeneen ñu ne déedéet loolu nekkul lu dagan moom la borom bi di wax naan qaala allazina xalabu ala amrihim ña not seen mbir mbokk bu ñu waxee not rek xëccoo am na am déet xëccoo am na te toujours ña ëpp ci nit ñi ñay not mooy ñu xamul loolu it mbokk tax na ba tey jii boo demoon adduna li ëpp fu jullit yi nekk tey ak ñàkk a xam tax na ba seen nit ñu baax ñépp ñu ngi leen suul ca jàkk ja ñu bari ñàkk a xam moo tax bokk na ci loolu alquran la ñuy jàng mooy waa dëkk ba bañ gisee ahsaal bu kaf yi dañoo baax ñu ne ibnu alayhim masjida mbokk bu doon alquran rek la ñuy jaamoo yàlla kon tabax jàkk ci kaw sëriñ dana baax loolu am déet mais ndax alxuraan la ñuy jaamoo yàlla laa wallahi mbokk li ñuy jaamoo yàlla mooy alxuraan ak sunna te sunna mooy atte alxuraan comme ni ñu koy waxoon sun àllarba ji wees yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax na sahaaba yi ne ngallawaay xam leen ne bokk nañu yées ci nit ñi te bi mu koy feddali juróomi fan moo teem wuy di boroomam ñu yées ci nit ñi mooy ñi nga xam ne dañuy jël yonent yi di leen suul ci ay jàkk wala di tabax jàkk ci seen kaw waxuma nag ku dul yonent ki nga xam ne mooy mariatul qibtiya ak umu habiba bañ jógee fële nga xam ne mooy abasha ñëw di la nettali yonent bi alayhi salaam seen église ya ak seen kilifa yuñ fay suul yonent bi ne ulaika shirarul xalq ñu yées ci nit ñi mooy ñu ngi noonu ndax jàkk dañ koo defoon ngir wéetal yàlla ñoom nag bu ñu amee ku baax mu dee ñu sul ko ca jàkka ja wala ñu fekk place ku baax ñu dem tabax jàkka ci kawam ñooñu ñoo yées ci nit ñi su ko defee ngallaawaay mbokk ko am kattan mën caa wax bu fekkee loolu la te wax kem talal kattanam nit kenn du ko sul ci jàkka jàkka kenn du ko tabax ci nit question bi mooy ah yonent bi alayhi salaam ma nga ca jàkkaam ja sallallahu alayhi wa sallam mbokk yonent bi alayhi salaam ku tabaxoon jàkkaam ja di moom moo ko tabax moo ko tabax ndax prévoiroon na fa place bu ñu koy suul laa wallahi yonent bi alayhi salaam ku defaroon këram nga moo defar kër boppam nga jàkk ji nekk nii kër ga nekk ne ba nga xamee ne faatu na la ko saxaabaam yi seedeel bokk na ci Abu Bakar yàlla fu mu bëgg ñu suul fa yonent foofu la koy faate ci léegi ay Aïcha la kon foofu lañ koy war a suul dañoo tuxal lal bi rek fi yonent bi tëddoon lañ gas suul ko fa sallallahu alayhi wa sallam loolee duré na lu jege juróom ñeent fukki at ba jamono taabiina yi jamono boo xam ne sax xalifa bu baax boobu di Omar ibn Abdul Aziz ma nekkoon ka nga xam ne gouverneur ca Médine loolee da ngay gis la bu ki nga xam ne mooy amirul muminin Abdul Malik joxe ndigal ne nañ yokk jàkka ji biñ koy yokk la fa desoon ci borom xam-xam d'accord ñu woon ñu dugal ci kër yonent bi waaye mooy buur ñu toj kër gi jël dugal kër yonent bi ci jàkka ji kon automatiquement xabar bu dugg ci biir jàkka ji loolu moo ko dugal doonte ne ne ñaaka fekk woon ay miir def nañ fa ñetti miir yoo xam ne ni pour rek bañ kenn di julli di jublu ci xabar bi waaye la ñuy wax mooy erreur la dugal gañ ko dugal ci xabar bi ñeneen ñi am nañu daan ñëw sax di xalaat nañ ko toj mais ñu ne kon loolu fooye jàkka yàlla ji fooye xabar yonent bi sallallahu alayhi wasallam la waaye daal ñu xam ne loolee da yonent bi dakaa tere tere na ñuy tabax jàkk ci kaw xabru tere na ñuy tabax ñuy dugal xabru ci jàkk yonent bi tere na ñuy tabax bàmmeel mooy lii ngeen gis yoof waxuma nag lii am ci kër sëriñ si ay bàmmeel yoo xam ne kenn xàmmewu ko kaaba ga loolu waxuma ko sax waaye xatta tabax yi ngeen gis yoof wallahi yonent bi dafa tere loolu tere na ñuy peinture ko bàmmeel yi tere na ñuy bind bàmmeel yi fii fab jóobu fi tëdd fii Demba Jaay fi tëdd tableau yooyu ñuy def sax loolu du sunna wallahi du sunna yéen ñii waxuma ñu dem Makka ak Medina laajuma leen mais yéen ñi seetaan télévision gis xabru ya nekk ca Arabie Saoudite partout fañ suul Fahad fañ suul ay baayam fañ suul Bun Baaz fañ suul Useymin fañ suul sahaaba yi fañ suul yépp ndax gis ngeen fa tableau laa wallahi bàmmeel yépp a nuroo ay xeer yépp bu ko defee ñu xam ne jullit ñépp benn lañu am déet loolu mooy sunna sa baay boo ko bëggee teral du ay tabax ak i karo nga koy terale soo ko bëggee teral dee ko ñaanal yàlla dee ko jéggalul loolee nga naroon a jënde ay ay tabax sarax sarax ko miskin yàlla yóbbul ko tuyaaba bi am déet loolee mbokk la ñuy terale suñuy way de léegi kon sunu borom yàlla subhanahu wa taala wax loolu léegi nag dellu siwaat ci asaabul kahfi comme téere yahud yi dañ caa wóote te yonent bi alayhi salaam dafa mi ngi nettali histoire bi nettali boo xam ne yahudi weddi wuñ ci dara muy wane ne kii mooy rasulullah léegi yonent bi sunu borom na ko am na ñuy wax te ñoom yahudi ya ne trois la ñu woon ka leen ñeenteel mooy seen xaj bi gis nga yàllaa ngi delloo si xaj bi ba tey am na ñu ne déet ñeent lañu ka leen juróomeel mooy seen xaj bi am na ñu naan sax juróom benn lañu ka leen juróom ñaareel mooy seen xaj bi waaye lu lépp borom mu ne rajman bil xëy bi dañuy sànni ci kumpa rajman bil xëy bi mi ngi mel ne rek waa ji demoon ci guddi gu lëndëm yor ay fittam rek ci lëndëm gi rek di tiire di di di sànni ah gaa yi kooku mën naa jam waaye day mën naa sànni mille cinq cent fitt doo ko jam benn am déet loolee kon dañuy làmbatu rek sunu borom yàlla nag bi mu ne am na ñu ne juróom-ñaar lañu ka leen juróom-ñetteel mooy seen xaj loolee yàlla commenté ko moo tax sunu borom ne kenn xamu ko lu dul lu néew Abdullah ibn Abbas ne ana min al qalil man bokk naa ci néew yi ñu néew yooyu ñu ne ko ñaata lañu mën a juróom-ñaar lañu woon keneen juróom-ñetteel mooy seen xaj bi ndax suñu borom ba mu waxee lee ba pare dana rajman bil xay bi dooga indi nag ne juróom-ñaar keneen juróom-ñetteel mooy seen xaj bi waaye lu tax yonent bi tëbul ne juróom-ñaar lañu mooy boo demee ci tere yahud ya am na ñuy wax trois ñee quatre ñee wax cinq ñee wax nangam loolu ton bu ci dogu woon nag ñeneen ñi dañ koy weddi kon li mu wax dëgg la ñii nee nañ ñi ñeneen nañ lii ñeneen nañ lii loolee mbokk mooy kaddu borom bi subhanahu wa taala léegi nag bu ci nekk di dàgg sante lu dul dàgg sante boo xam ne bu kawe la ay mooy alquran di wér ji ngay jàng nga xam ne day weddi waxi yahud yi mel na nga koy dàgg sante ñoom doonte ne jubluwoo ko doonte ne nii am nañu ko firee zahiran ay ma alxujja mooy lay yu leer yu dëgër doonte ne dàqantewul waaye mbokk la ñuy bañ rek aussi mooy yonente bi alayhi salaam tere woon na dàgg sante même bu dee yaa nekk ci dëgg weerante jullit du def loolu soo waxee mu wax mu wax ma rek bàyyil mais am maa da ngay gis gaa yoo xam ne wallahi bu doon dañuy dàgg sante ci masala ci diine ak ñoo xool mu baax waaye football football la ñuy nekk une heure de temps di ci dàgg sante gisuleen loola waay kee parti politique une heure de temps di ci dàgg sante léegi-léeg ba dënn yi tàng léegi-léeg sax ba xeex sax mën na caa am am maa jullit du def loolu mooy yonent bi alayhi salaam nee na bàyyil dàgg sante même boo yégée ne yow yaa nekk ci dëgg gannaaw ba nag ñooñu di ahlul kitaab bul dem di ci laaj kenn dara wala tastafti fihi minhum ahada loolu itamit mbokk julit nañu xam ne ñooñu di ahlul kitaab yonent bi alayhi salaam lan la ñu waxoon mooy lépp lu ñu wax ñe li ci mën a am mooy ñetti mbir yi benn lim la wax alxuraan wax na ko kon dëgg la la tax nga gëm ko du moom lim ko wax mooy li ko alxuraan fedd li moo tax lam la wax ñaareel bi mooy alxuraan weddi na ko ak koo ko mën a wax ci ñoom waxul dëgg mu wax la nag loo xam ne gisoo lu koy dëggal ci alxuraan gisoo lu koy weddi ci alxuraan su boobaa bu ko gëm bu ko weddi am déet kon wala tastafti fihi minhum ahada wàllu asabul kahfi boo la bu ca laaj ab chrétien wala ko yahud waaye lu dul asabul kahfi it lépp lu jëm sa wàllu diine boo ko laaj ab chrétien boo ko laaj ab yahud mi ngi noonu
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا
sunu boroom jalla wa ala mu ne wala taqulanna li shay'in bul wax mukk ñeel dara inni fa'ilun dhalika ghadan ne man day aji def laa lii bu subaa illa an yasha allah lu dul nga boole ci ne xanaa bu sobe yàlla wazkur rabbaka idha nasita na nga fàttaliku ko sa boroom heure boo fàttee ay fàttee wax insha allah waqul asa an yahdiyani rabbi neelit mën na yàlla subhanahu wa taala day jëbal ma li aqraba min hadha rashada ci lu gën a jege ci lii ma nekk ci ak njub wa labisu fi kahfihim thalaatha miatin sinina wazdaadu tis'a xale yi day sax nañ ca seen xunti ma ñetti téeméeri at yoo xam ne tegoon na juróom ñeenti at qulillahu a'lamu bima labisu neel yàlla day moo gën a xam te lañ fa saxoon lahu xaybu samawati wal ard yàlla ñeel na ko kumpa ak asamaan yi ak suuf absir bihi wa asmia kenn gënu koo mën a dégg wala gën koo mën a gis ay moo gën a mën a gis ñépp gën a mën a dégg ñépp maa lahum min dunihi min wali ñeelul yéefér yi gannaaw yàlla kenn ku leen di féetewoo wala yushriku fi xukmihi ahada te yàlla day du boole ay du boole ci ay atteem kenn koo xam ne nii moom la ca jox ndigal watlu ma uhiya ilayka min kitaabi rabbik del jàng nag li nga xam ne wahi nañ ko demee ci yow ci sa téere borom bi laa mubaddila li kalimaati amul lenn loo xam ne dana soppi ñel kaddu yàlla yi walan tajida min dunihi multahada te doo mën a am mukk gannaaw yàlla kenn koo xam ne ab làqukaay lay doon mi ngi noonu mbokk suñu borom mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam bul wax dara lu dul ne danaa ko def suba lu dul da nga ne insha allah jàngoon nañ ca bopp saar ba ne lu waraloon histoire ashabul kahf waa Makka dem nañ Madina laaj seeni borom xam-xam lu ngeen xam ci ngóor si nekk Makka nan yàllaa ko yónni ñu ne su ngeen demee laaj ko ñetti laaj bu tontoo lépp du yonent bu tontuwul dara du yonent su dee am na tontu na ñaar yi bàyyi benn bi xam leen na yonent la lu ngeen xam ngeen def ko ñu ñëw laaj ko histoire ashabul kahf laaj ko histoire buur bi moomoon penkook sow muy Zulqarnayn laaj ko ani ruux yonent bi alayhi salaam ne leen waaw dem leen bu subaa ngeen ñëw ma tontu leen te booba aada yàlla moo nekkoon sunu borom nee na ko wala ya'tuunaka bi masalin illa ji'naaka bil haqq wa ahsana tafsira heure bu ñu la bëggee piéger ci ay wax danaa di indil dëgg ak lu koy tafsir yonent bi dem leen bu suba fàttee wax insha allah suñu borom yàlla natt ko natt ko pendant quinze jours waa Makka di ko saboté lu nañu wax ko waa ja doon wax day ay waxam ne teer na waaye yéex nañoo dem Madina waay loolu nañu saboté ko te la suñu borom nag doog a wàcc Jibril alayhi salaatu wassalaam daa da koy nettali ñetti histoire yépp mi ngi noonu léegi nag borom bi na ko bul waxati dara danaa def lii suba lu dul ne danaa wax insha allah xaw ma ku koy fàtte da waaye yonent bi moom dootu ko fàtteti moom yonent moom dootu ko fàtteti mukk léegi nag kon mi ngi noonu sunu borom yàlla nag ne ko xam ngi nga xam du tax nga mën koo def lu dul ne mbokk insha allah lan lay firi insha allah li muy firi mooy bëgg naa def nangam masalan suba dinaa dem Dakar mais boo nee suba dina dem Dakar ça veut dire que yow xam nga kumpa mooy da nga fi dund ba suba am déet ndax loolu xam nga ko xamoo ko ndax suba da nga am kàttan dem Dakar même boo dundee xamoo ko ndax doo am leneen lu la fànq lu gën a garaaw dem Dakar xamoo ko kon yow xamoo kumpa moo tax nga ni insha allah su ko defee insha allah bi mooy maadaama sha allah neex na yàlla rek ndimbalu yàlla moo ci nekk am déet loolu day tax ba mbir mi boo ko defee doo ci yëg sa bopp ndax da ngay xam ne yàlla la am déet mooy jullit lépp loo def da nga ci yëg sa borom doo ci yëg sa bopp mi ngi noonu lu baax lu mu mën a doon yàlla mën na ko kattanal ba nga def ko illa an yasha allah seytaane nag mbokk lan mooy liggéeyam mooy yàlla may na ko seytaane di dugg suñuy xol allazi yuwaswisu fi suduri nas seytaane da lay fàtteloo ah léegi nag su may tafsir aaya bi dinaa wax ne masalan bari na ñu bari ci waa jàkka ji xam nañu ne booy dugg ci jàkka da nga war a wax bismillah ah wasalaatu wasalaam ala rasulillah allahuma iftah li abwaaba rahmatik man nga caa dolli sax auzu billahi alazim wa bi wajhi alkarim bisultani qadim min asheytaani rajim waaye ala kulli xaal mbokk julit ndax amul ci ñeen ñu xam ñaan gi ci bi ñuy dugg sànq fàtte nañ ko akay doomu adama la loolu yàlla bind na noonu am na boo xam ne waajoo kenn ci yéen wóor na ma ne am na ci yéen bi muy jàpp léegi timis bi mu paree fàtte naa wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul loo xam ne boo ko waxee ñu ubbi la juróom-ñetti buntu àjjana yi mën na am kenn ci yéen fàtte na ko sëñ Thiam mën na am bi muy añ sànq fàtte naa wax bismillah bi mu paree fàtte naa wax alhamdulillah loolu mbokk seytaane di lay topp di lay fàtteloo sunu borom yàlla nag ne wazkur rabbaka iza nasit lépp zikr boo waroon a def foo ko fàttali ko rek wax ko dem nga ba ni bi sa kër yéeg ne bi may dugg ci jàkk ji ñaanuma bi may génn ñaanuma ñaanal ñaanuk jàkk dugg ñaanal ñaanuk jàkk génn mi ngi noonu mi ngi noonu ah man day ba may ànd ak suma soxna waroon naa wax bismillah fàtte naa ko dem naa ba suba ah waxal bismillah lépp loo xam ne zikr la boo xam ne da nga ko waroon a wax fenn fàtte ko ngalawaay wazkur rabbaka iza nasit xoolal mbokk lu gën a garaaw ci jullit lu mel ni julli ngay gis mag moo xam ne un milliard a ngi ne bàyyil takkusaan du ko bàyyi am déet mais seytaane mën na fab di xelam mu fàtte takkusaan complètement fàtte julli fajar complètement léeg-léeg mën ngaa dem ba sax trois jours après i mais man ba muy dem Kaolack keroog naan ba ma yëggee julli fàtte naa julli gi gis ngeen su ko defee lan mooy mbir bi yeneen bi nee ne fi nga fàttali ko foofu mooy waxtoom mi ngi noonu fi nga fàttali ko foofu mooy waxtoom ku nelaw ci julli wala nga fàtte julli fa nga fàttali ko mooy waxtoom jógal nga ànd ak dal jàpp julli yàlla nangu na sa julli waskur rabbaka ida nasita borom bi nag subhanahu wa taala daa di ne mën na am sama borom yóbbu ma ci lu gën a jubli ci ak njub te mbokk jullit ci diine noonu la da ngay ñaan yàlla dolleeku njub te wa yazidu llahu lazina ihtadaw huda am déet sharia noonu la doon wàcc ci yonent bi alayhi salatu wasalaam ba sunu borom wàccee al yawma akmaltu lakum diinakum kon jullitit naka noonu da nga war a ñaan di yokku njub di ñaan yàlla mu dëppal la asa ci yàlla day noonu loo xam ne lu war la su ko defee yàlla mi ngi ñuy jox misaal portable yi wallahi da ngay gis ne xabaar yu yu bari yuñ ci mën a jànge mi ngi ci suñu borom indi la ko kawteefu zaman bi lu bari ñu mën ko ca jànge gis nga batterie portable bi ni muy demee ba fees dell di wàññeeku naka noonu jullit xolam noonu lay mel njub gi da ngay gis ne mi ngi jóge ci li nga xam ne xam nga ko ak ragal yàlla gi nekk ci yow loolu tax yow da nga koy yëg da ngay yëg ne ay temps da ngay sawar ci jaamu yàlla sawar ci jege yàlla mais léeg-léeg da nga yëg ab faiblesse ci sa kaw loole nag bokk na lu koy lu la ciy dimbali mooy baril zikrullah baril toog ci jataay yu diine baril di jàng sa téere boroom loolee dalay dolli njub ma tax suñu borom ne wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imana da leen di dolli ngëm maadaama dalul ne leen ngëm rek da leen dolli la nga xam ne mooy ak ak njub borom bi daa dee tëj nag histoire ashabul kahf yéen yahud yi ah sunu yeneenti bi ñëw des siècles et des siècles après mi ngi leen di nettali te mooy dina ne sax nañ ca kax fi ba ñetti téeméeri at ca ña nga xam ne dañuy nattoo atu jant bi ñetti téeméeri at dañuy nattoo atu jant bi waaye teg nañ ci juróom-ñeenti at ñuy nattoo atu weer bi te ñun l'islam atu weer bi la ñuy nattoo islam dàqul calendrier solaire mbay mi yépp ci loolu la aju amma calendrier bi tubaab bi defar loolee islam reconnaître ko janvier 31 février 29 ilaa loolu moom seeni caaxaan rek la amma saison yi am suñu borom teqale at bi fukki weer ak ñaar ci atu jant loolee depuis yàlla bind asamaan suuf la waaye ñun la ñu yàlla tënkaloo mooy weer bi te bokk na lu yàlla nattalee ba dogal ko mooy fanweeri at ak ñett yu nekk ci atu jant fanweeri at ak ñeent la ci atu weer téeméeri at yu ne ci atu jant téeméeri at yu teg ñetti at la ci atu weer kon ñetti téeméeri at ci atu jant ñetti téeméeri at la ak juróom-ñeent ci atu weer gaa yi ab électre bu jàngul aana bee bu ko ko yàlla xamulul ndax mën na koo xam mooy sunu yeneen muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ngi noonu wasdaadu tisa sunu borom yàlla nag ne yàlla day moo gën a xam ñi ngi noonu ca la nga xam ne moom lañ fa sax ndax yàlla mooy ci gën a gis ñépp gën a dégg lépp loo jàkkaarloo di ko gis rek xamal na yàlla la ko gën a gis looy dégg xamal na yàlla la ko gën a dégg yàlla waa jurit bàyyi xel ci loolu looy gis yàlla la ko gën a gis looy dégg yàlla la ko gën a dégg te loolu mooy al ihsan nga bàyyi sa xel ne sa boroom mi ngi gis lépp mi ngi dégg lépp kàttanam nga yegg na fépp comprendre na lépp jàll wa ala boroom boobu nag mu wëlbati ko waat joxaat yonent bi ndigal ay watlu ay wattabi toppal mbokk ak tilaawa boobu day firi topp alladina ataynahum alkitab yatluunahu xaqa tilaawati ña nga xam ne dañ koy topp jàng dëgg-dëgg jàng mooy ña koy topp dëgg-dëgg topp doonte ne ne jàng gi rek tuyaaba la yonent bi alayhi salaam nee na xarf boo jàng ci alquran am nga fukki tuyaaba loolee war na jar jullit di ko jàng suba ngoon takkusaan heure bu ne muy jàng téereb yàlla bi xarf boo jàng am nga fukki tuyaaba que ne xool suñu borom rek soppil ñu ko xarf boo jàng ak dix francs gis ngeen ah kon ngeen gis gars yi bàyyi journaux yeeg télévision yi buñ toll di jàng téereb yàlla bi waaye mbokk tuyaaba xasana moo gën dix francs gis ngeen xarf boo jàng am tuyaaba tuyaaba boobu sunu borom da koy multiplier fukk tuyaaba yowm alqiyaama alxasanatu bi ashri amsaliha waaye mbokk jàng ga rek loolee doyul de jàng gi mooy liir notice bi ah da ngeen dem pharmacie jënd fa garab da ngay liir notice bi waaw ndax garab gi boo ko jëndee mu cher loolu nga liir notice bi dugal sa poos ndax da nga faju déedéet kon liir notice bi boo paree lam la wax ngay def jëlal doom suba jëlal doom ngoon léeg-léeg mu ne la jël ko une semaine arrêté nangam nangam loolu mooy alquran da nga koy jàng mu ne lii la yàlla bëgg lii la yàlla bañ su ko defee nga topp loolee borom bi nag subhanahu wa taala ne xam leen ne seen borom yàlla day mooy ki nga xam ne amu leen ku leen di féetewoo mooy yéeféri amuñu ku leen di féetewoo donte ne ne féetewoo googu mooy féetewoo tawfiq ak sawaab mooy yàlla di féetewoo yéeféer di ko fay wala di ko dëppaleeg njëriñ amma bu dee féetewoo nekk seen buur al mulk wal qahr loole moom mooy seen féete ci loolu wala suñu borom ne suma ruddu ila llahi mawlaahumul xaq mooy mi ngi noonu mawlaahumul xaq ci moo leen bind moo leen moom mooy def ñoom lu ko neex borom bi it nee na moom ay atteem du ci boole kenn gannaaw ba it jàng nañ ci suuf mu ne laa mu baddile li kalimaat ngalawaay jullit ñi nekk Sénégal ak jullit ñi nekk fuñ mën a doon nañu xam ne sunu borom dafa atte ay atteem atte yi mooy sàngara xaram na riba xaram na atte yi mooy woor leen aju leen makka waaye atte yi mooy samay loi tëral leen ko ku sàcc dagg leen loxoom ku njaaloo duma leen wala ngeen rey loolee ku rey nit rey leen ko lii mooy loi yàlla sunu borom nee na samay loi du ma ci boole kenn du yonint du kenn ku mën a doon te samay loi du soppeeku su ko defee nga la waay nañu bokk di sabab la cay ñaan yàlla loi yàlla yooyu ñu attee ko ci réew mi la yàlla addu wax ca loolu du soppeeku mbokk nañ ko def la yàlla wax bu paree nag nu ñuy doxale suñu réew ci ay loi technique ah gouvernance ak yooyu loolu suñuy mbir la maadaama safaawoowul ak loi yàlla rek yàlla duñ ci wax dara loolu maaruuf la mais li yàlla tëral muy ay loam ngalawaay loi yooyu dañ ko war a saxal ci jaamu yàlla yi sunu borom laa yushrik fi hukmihi ahada te sunu borom laa mubaddila li kalimaat ay waxam du soppeeku abadan la valable woon jamono yonent bi moo valable ba ila yawmi diin lay valable ñu koy atte woo tey ca Makka moo valable woon ñu atte woo ko Sénégal moo valable woon ñu atte woo ko fépp foo xamee ni nii ay jullit yi wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah ñu ngi foofu loolee nag sunu borom mu ne xamal ne doo am kenn koy mën a làqu gannaaw yàlla loolu tax jullit dana fàttali boppam fukk yoon ak juróom-ñaar ci lum néew néew ci bés bu nekk yàlla iyaaka yow kese na'budu yow la ñuy jaamu ñun jullit ñi wa iyaaka yow kese nasta'inu la ñuy dimbali ko mi ngi noonu ndax amul kenn ko mën a mucc wala mën a làq fenn loodul ko dellu ci yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla làq ñu àdduna ak alaxira musal ñu ci seytaane ak lépp lu ñu yàqal suñu diine ak suñu àdduna wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad ñi sànq mu ne su doon te ne ne waa ji dafay julli mu fàtte taaye bi ndax julli googee da koy julli waat mbokk li nga xamee ne nii moom mooy taaya boroom xam-xam yi dañ ne bokk na ci sunna yi nga xamee ne nii soo ko fàttee da nga koo war a sujuutal da nga koo war a sujuutal léegi bu dee ni masalan taaye bi ci digg bi la da nga julli ñaari rakka au lieu nga toog nga jóg taxaw fàtte nga ko mais fàttaliku nga ko bi nga taxawee ndax da ngay dellu si at toog taaya dañ ne déedéet loolu comme maadaama sunna la ci dugg nga ci farata bàyyi ko rek soo jullee ba pare bala ngaa sëlmal nga sujud ñaari sujud loolu mooy la nga xam ne moom la ñuy def léegi même bu doon da ngaa sëlmal ba pare sa xel dem ci automatiquement su boobaa da ngay sujud ñaari sujud rek insha allah sa julli day doon julli goo xam ne julli go baax la beneen laaj bi it mooy kii dafa fàtte woon moom jàpp julli ba pare loolu moo ko moom julli googu moom baaxul su dee da ngaa fàtte jàpp julli ba pare julli gi baaxul léegi nag bu doon tene ne masalan am na luy yàq julli mais boo ko fàttee moom du yàq sa julli mooy waajib julli mbubb bu am sobe bu dee da yaa ko tey xam ne mbubb bii dafa am sobe nga julli ko julli gi baaxul amma bu dee danga ko fàtte nga julli ba ci digg bi fàttali ko ko boo ko summee maadaama sa awra du feeñ julli gi baax na boo julli woon ba pare it julli gi baax na boo ko fàttali ko doonte ne yére bi dafa ànd ak sol mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam am na benn ci lu mbokk bi suñaate yónni woon ci internet bi koo xam ni moom def ne ndax su dee ne tey ajjumaa ngi nii man sama kër soriwuñu jumaa ji maa ngi dégg li jumaa ji wax ndax mën naa julli sama kër ànd ak waa jumaa ji mbokk loolu munte nekk jumaa ak jàkka dañu fay dem kenn du toog sa kër di julleeg jàkka bal yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na man day xawoon naa sax ne waaw te ma santaane ñu taxanal ma mat ma santaane nañu noddu ma wax keneen na jiite man ma dem wër kër yi ku ma gis nga toog sa kër julli soo ma taal kër gi sa kaw kon su ko defee kon aji noddukat bi dafay wax hayya ala salaa am déet kon mooy génn leen seen kër ngeen ñëw hayya ala salaa ñëwuloo hayya ala falaa ñëwoo toog sa kër julli ba pare bëgg am julli mbooloo loolu yu mbokk loolu mënta nekk mi ngi noonu ñu bàyyi ci xel bu baax wallahu subhanahu wa taala alam waaw dama fàtte julli ba fàttali ko ko ndax dama koy fay wala dama koy jooxe ça dépend ndax julli gi faat na wala faatul masalan waroon ngaa julli tàkkusaan tey jii fàtte ko dema dema dem ba sept heures sa xel ne yar e julleegu ma tàkkusaan su boobaa boo koy julli da nga koy julli normal ay da nga koy jooxe léegi dem nga ba jant bi so sa xel doog na yar julliwu ma tàkkusaan su boobaa da nga koy fay da nga koy fay léeg-léeg sax mën nga koo fay fayen bu xaw a am tuuti complication masalan tey waa ji dafa nekkoon ci tukki waroon na julli tàkkusaan aadam mooy da doon wàññi ñaari rakk ñaari rakk léegi bi mu ñëwee ba ci suba ga wala même bi mu ñëwee rek xelam dem ni i man ko julliwuma tàkkusaan te tukki ba su boobaa lu muy def ñaari rakk lay julli ñaari rakk lay julli contraire bi mooy dem na ci tukki ba di julli tisbaar ñaar tàkkusaan ñaar gee ñaar ba mujj xelam na yar e keroog day man julli gee julliwuma ko woon war a fay julli gi te mi ngi ci tukki ñeenti rakka lay indi ndax julli na nga ko faate noonu nga koy fayee mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw ndax suñu amoon état islamique ni ñuy def ak sunu xabru yi ñu tabax ci jàkka yi yépp la ñuy toj yépp la ñuy toj gars yi Abdul Aziz ibnu Abdurahman Ali Saoud kii papa yi ñee nekk Saoudia ba mu ñëwee ay xabru la fa fekkoon yépp lañ maasale xabru yépp lañ toj mi ngi noonu su ko defee loolu ñu bàyyi ci xel bu baax Arabie Saoudite doo dem fekk fa xabru wali boo xam ne ni dañ koy wër di ko ziar abadan lii xew fii ci sunu xabru yi xabru yu ñu def comme Kaaba soo demee nga xam ne gars yi dañ koy wër juróom-ñaari yoon julli fa ñaari rakka maa ngi gars yi xam ngeen loolu lu bari suñ xabru yi fii dañuy dem wër xabru bi julli fa ñaari rakka waxuma xabru yépp la am mais wër xabru yi julli ñaari rakka bari na ay xabru fii ci Sénégal nit ñi bu ñu fa demee di ñaan di julli am na ñoo xam ne dañuy wan fenk bi gannaaw sax julli jublu ci xabru bi yooyee kon da ngay gis ne ay ay wasan la yeneen ci bàyyi salaam nag waxoon ne rabbi la tajal xabri wasanan yu'bad yàlla sama xabru yàlla boo ko def xërëm te alhamdulillah xabroom ba kenn defu ko xërëm nga noonu kenn defu ko xërëm même bu erreur amee ba ñu dugg jàkka ji daf ngi ñuy def suñu xabru yi fi kenn xalaatul def ko xabru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolee kon moom mooy benn bi ñaareel bi mooy nit ki boo koy ñaanal ndax mën nga wax la ayi boo waxoon mooy rabbi masaniya dur wa anta arhamur rahimin loolee suñu borom netti li wuñu ko lu dul ñu koy wax dama ko bëgg a waxal keneen it mën na nekk rabbi massahu durru wa anta arhamur rahimin yàlla kii di sab jaam la lor dal na ko wa anta arhamur rahimin nga ñaanal ko ko amaa di ko ëf ci ndox di ko jox loolee moom gisuma ci benn tegtal wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw xaal dama am problème ak magam nee na mu ñëw ne ko baal maaq mu ne ko man dogoon ak yow adduna ak alaxira ala kulli xaal loolee mu def mer moo ko te yóbbu mais def na loo xam ne nii lu xaram la moo dina ne jullit su la sa mbokk jullit tooñi balu la àq àq bi ñaar moo mën a nekk benn àq bi am na lu mu yóbbaale su boobaa am nga droit ne ko delloo ma sama àq ma doog laa bal àq masalan waa di ñëw leble un million ne la kat bu weer wi dee dinaa la ko indil weer wi dee indilu la ko ba pare ñu ne waa léegi dama bëgg nga baal màq rek bàyyi un million bi ah loolee mën na am sa xol du la ko may nga ne ko xëy dinaa la balaa ay condition nga fay ma de mi ngi doon waa ji jël sa lu mën a doon loolu mooy mbir bi amma bu dee tooñ nga dafa yee yeggoon ci loo xam ne du lu ñuy mën a delloo ay wàllu wax yu ñaaw la wala wax yu demee noonu mu ñëw ñaan leen ne la baal ma àq sunu borom yàlla lan la wax fal yasfu fal yafu wal yasfahu ala tuhibuna an yaxfira allahu lakum ngallawaay bu la nit tooñee baal ko lu tax xanaa bëggoo yàlla baal la te mooy waa ji nam la tooñee nam la méttee soo ko baalee mbale gu toll noonu muy jóge ci yàlla bal mbale gu ëpp noonu muy jóge ci yàlla loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax amma waa ji mer na dogoon nag yow àdduna alaxira nañu xam ne loolu mu wax moom du waxi jullit jullit du wax loolu jullit du dog mbokkam ah maadaama jullit la amoo droit di ko dog adduna wala ak allah alaxira moom ay waxi boppam rek la waaye adduna amoo droit di ci dog sa mbokk jullit lu dul ne ah mbir la boo xam ne nii da nga ragal ne. kii kat mi ngi may teg ay fitna yoo xam ne nii won ko gannaaw moom mooy tax mais su demee ba tuub loolu ñëw ne la baal ma ak amatoo benn lay benn lay ci di dogoo ak moom yal na yàlla dundal ñu ci ngërëmam booleel ñu suñuy xol musal ñu ci lépp lu ñuy teqale wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad